dajale ndaw yi dafa am solo di indiwaat ndaw yi dafa am solo. Ba Daara nee na am na am na final bu mag a 8 janvier. adduna li ci am solo mooy nga tet artiste comédien yi dem nañ final am nañ football fii dimanche lundi lundi nga mën ci génne seen xel li nga lu baax la nga ko gëma leen indi ba ñu nekk seen xel nekk te dañ lépp métier la lépp lu baax rek da nga ci génne sax di ci gis sa bopp te sàccoo fenoo jaayee dorog métier la maanaam xam-xam ñett la métier bi nga jàng école bi ak alxuraan bi ak li nga konoon sax métier la ndax laa nga ko mën dëkk dëgg da ngaa da nga am métier da nga da nga jàng kon lépp lu doomu aadama yi def métier la di wax nag euh, jeunesse su Mbàkke nañu takkuwaat jéem a comme ni ñu koy defee nii parce que Mbàkke amul problème parce que ñëpp ay cousin cousine la Mbàkke benn koo xar ñaar ngi ñaan yàlla euh, xale yi tamit wax dëgg am benn bonne xam ne dëkk bi dañu am ci ñoom yaakaar lii ministre bi wax chaque jour rek moom bu doon jëmmam rek dootul do bare na soxlatu dara parce que euh, yàlla may na ko li nga xam ne nii ba mu ko wutee jee génne ENAM lool rek mënoon na cee def kon tey li mu am rek yokkute la kon ndaw ñi ak dëkk bi moo ko ñor di wax ne ndaw ñi nañu jàpp too bàyyi fii ak juróomi at élection maire amul politique amul lépp lu baax ñu ngi leen ci convaincre ngeen ñëw jàpp ci parce que Mbàkke moo ñor ñun politique dafa am benn moment day jeex te wax dëgg ab dëkk politique yoru mbooloo liggéey gëm sa bopp moo ko yor. dañuy rafetlu lii rek ndax c'est la première fois ma ñëw te course bi boolewuma ak kase kase sama frère sama lépp la. kon lépp lu muy def rek ñun dañ ci teew dañu teew en tant que conseiller municipal teewaat en tant que teewal monsieur le ministre parce que li El Hadj rek empêchement moo ñëw te yaakaar kenn ci ñu rek bu ñëwee teewaal teewaaleel nañ ñëpp kese nag dañ koy sant bu baax di ko gërëm parce que mënoon na doxalee leneen wala mu defe ko leneen mais ni mu ko defee nii dafay encouragé ndaw ñi di encouragé jeunes yi en même temps ñu ngi ciy jàllale ay message yoo xamante ni xëy na am na xale yi nga xamante suñ ko déggee nekkoon ci leneen dinañ changé parce que moom doon na na ci leneen nag mais nekku ci dafay def loo xamante ni pour jeunes yi di ko roy te ñun buñ sañoon Mbacke jeune jeune bu nekk Mbacke duñ dégg si moom lenn la lu rafet parce que ñun Mbacke lañ am fi lañ juddoo fi lañ yaroo te Mbacke lañ bëgg te képp ku jógit ngir jàppale xale mbaake Mbacke ñun dañ ci ànd bu baax a baax man tey jii dama amoon empêchement mais moom moo tax ma dagg loolu sama cousine la ñuy takk ma ñëw fii ñun Mbàkke moo ñu ñor amuñu lu dul Mbàkke suñuy frère ñoo fi nekk ak suñuy doom kon képp ku leen di convaincre ci loo xamante ni lu leen jëmale kanam la rek ñun dañ ciy kontaan. Mm. ndax tamit bëgguñu tamit buñ sañoon lu baax lu ne mbaake lay ñëw. buñ sañoon président de la république sax Mbàkke lay de mais nag lu jot yomb waaw lu jot yomb liñ gis nii daal dalaguñ na suñu xel ñuy remercier tamit monsieur le ministre ci taxawaayam ci Mbàkke ndax tànkamtaluwul kenn xeebul kenn xeebulul kenn bésam tey ji dafa naroon ñëw empêchement rek moo ko teree ñëw mais ñun buñ teewee rek moom nag kase bu baax a baax di ko gërëm ndax li mu def bu ñu sañoon tamit ñoomu moom dañ koy ànd li muy doox bam sedd guyu waaye nag xëy na suñu borom noonu la ko bëggee di ko sant di ko gërëm waa xam nga man daa ki may àndal moom yitteem yëpp ndaw la fu mu toll boo ko séenee mu dem boo xoolee xamal ne ci yittee ndaw yi yàlla dogal nag jox ko liste de la fonction publique kon jàpp naa xelam xalaatam xolam yëpp ci ndaw yi du leen fàtte du leen bàyyi ginnaaw waajtaay nag day waaj rek dafa bëgg bu ñëwee ñëw doole loolu kese la sant bu baax wax di leen gërëm waaw waaw jërëjëf. Euh, affaire bi nag comme d'habitude rek ni daan demee rek lay demee ni ma koy waxee dama koy def ngir population bu mag euh, ambiance ak frais sensibiliser nga xam ne ñoo di borom mbaam yi waaye li ma ba tey li ma doon séntu nag ci public gis naa ko waaye li ma seen si li nga xam ne moom moo di wàllu koom amul te koom bi tamit côté autorisation moom la am na ñu am na ñu ñëw am na ñoo xam ne tamit woo nañ ma mais am na ñoo xam ne tamit ñëpp rek damay xam ni Mbàkke la man moom affaire bi defuma ko pour ko pour dara waaye lu ma si fekk si ma xam loolu tamit moom mooy dayo bis di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn koo xam ni tudde naa bi ñu doon la fonction donte gisuñu ko waaye dañuy jàpp ne empêchement yi ndax démb amoon nañ defe naa conseil des ministres foofu nga xam ne moom di palais booy mbaal yi lañ ko wàññi bu fekkee mbaam yi dañoo réglementé ñu wax leen woo leen toog ak moom ñu réglementé ndax mbaam kenn mënu koo génne li may wax ci benn bàq mbaam dafa bokk ci transport bàqe ak mais gaafal nañu mbaam yi yàq nañu mbaam yi teguñu leen joxuñu leen seen gëdd joxuñu leen cër mbaam yi bu fekkee dañoo am benn problème nañ leen woo seen njiit ñu toog ñu wax leen problème ba ñu am ñu ngi jëm ci ko jàpp ñu métti na defe naa teel woon ko ci mbaam bi mu événement bu mag bu ñëpp xaar démb si 18 heures la ñu dajale mbaam yëpp jàpp te xamuñu lan la mbaam yi jàpp giñ leen di jàpp loolu bokk na si beneen bi mooy sensibiliser bi may sensibiliser booy yi muy nañu wàññi kees gi mbaam mën nañ si liggéey am si xaalis te du am benn léegi mbaam bu demee bay jar euh, deux cent dix mbaam dem bay jar cinq cent mille te mbaam bu njëkk da daan toog bëgg ko vingt cinq mille mbaam trente cinq mille franc am mbaam léegi mbaam dem bay mun a jar deux cent dix mille kon mbaam am na valeur donc su mbaam bi tamit li si des mooy nit ñi valoriser mais autorité de dëkk bi toujours nii juróom-ñetti at si li ñuy daw nag formation yooyu béy béy ñu ne mbaam seytaane la mbaam mais mbaam nee naa leen bu dee ma kii mbaam laa am moom lay def chaque année dama koy def xaaruma si mu njëkk drapeau bi may xool ma neex ma tuddee la soo ñëwee baaxul ko waaw mu ne ma lii Makhtar Diop moomu joxoon ndigal boobu moo tax mu koy def ñaari yoon sax décembre dama koy def avril dama koy def te incha allah avril bii di ñëw dinañ ko waaj bu tombé wul ak koor gi bu soobee Serigne Touba dama koy làbbaliwaat te dinaa xool keneen ku nekk fii si Mbàkke monument mu tuddee ko li nga xam ne mooy